yaakaar di leen joxaat seen wàccuwaay euh, di wax rek ne li ñu fi dajale tey mooy bisub Serigne Touba bi euh, di sant ñëpp di wax ne bis bi moom Serigne Touba moo ñu jàngaloon nii bis bu weer wi teroo bu ko sunu poos fekke bu ko sunu doole fekke loolu it yaakaar naa ne waa Nuuru Daara ni euh, waa Daara Xidmatul Xadim jëfe nañ ko tey jii sunu jëf sunu jëf tey yaakaar naa ne kawe na lool waaye nag nawuñu ko loolu li ñuy ñaan rek mooy tase ceeg ngërëmal Serigne Touba te yàlla ñu tase ngërëmal bi. Euh, tey nag yàlla dogal na ni amoon nañu quinze mbana quinze mbana yi ceinturé nañ marché central ceinturé nañ marché central commencé nañ première porte ba daw ba dëppaat ñëwaat fekkiwaat première porte loolu it ñu ciy sant sëriñ bi ndax liggéey boo xam ne ci beñe lañ ko commencé woon tey di dem bay am 16 mbana kon ñu ngi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax di ñaanal suñu xalifa Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi te mu wér loolu di sant tamit waa daayira bi ndax gis nañu seen taxawaay wax dëgg yàlla muy góor yàlla muy soxna ñëpp ci suba ba légui ñi ngi ci liggéey bi bayyi seen yitte yépp nek ci di doxal kon nak ñi ngi leen ñaanal yalla nañ ci tassé ngeureumal sëriñ bi yalla nañ ci tassé ngeureumal sëriñ bi ci biir loolit ñi ngi sante autorité yi nga xam ñi ngi nek ci dëkk bi ci biir sant gi ñu ci jiital monsieur le maire sëriñ Mboup vraiment mention spéciale parce que depuis yëf taxaw ba légui yaakaar na ni mu ngi ciy def kent lay kàttanam kérok yëkëti na adiyé ju bëri jox ñuko ko te kenn umpalé wu ni bi ñuy dem ziarit mo yëkëti won bis abal ñuko ko bis climatisé ba paré def ci gasoil aussi jox ñi ñuy secrétaire général bi moy mbay Ngom rëccu wuñu lu ko doon défé invité d'honneur ndax yónnee na fi addiye ju takku indi na ko fi kon n'ak ñu ngi koy sant bu baax di ko di gëreum adjoint au maire yépp ndax xeexu sot lañ ko def yaaka na ne ñoom ñëpp tabal nañ ci sen ñax beneen bi ci topit ñi sant préfet dëkk bi préfet bi nga xamni mo moo jiite dëkk bi marchand tablier yi nek ci panneau bleu bi ñu recaser len fa ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreum ñi ngi lay ñaanal yàlla ndax wax dëgg yàlla préfet bu woyof nga keroog bi ñu demee délégation dem fa la ñu ne dem leen ngeen doxal jafe-jafe bu ngeen am ngeen woo ma ma jàppal leen loolu autorité moo koy def. kon nag ñu ngi koy seedaloo président Diomaye fay ne préfet bi nekk ci Kaolack cant am nañ ko cant ameel nañ ko ngërëm. ñi ngi sant waa Kaolack yëpp di sant délégué yi ñu bokkal marché bi surtout waa centre bi centre commercial bi nga xam ni mooy centre commercial Cheikh Al Islam ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm. di sante suñu mbokk talibé yi ne ci dëkk bi yëpp di sante suñu mbokk julit yi di sante tamit waa bay faté wuñu wa lewna di sante wa Kaolack yëpp kon nak ñi sante ñëpp di gërëm ñëpp di wax yalla nañ ci tassé ak ngërëmal Serigne Touba alaykum wa rahmatullah salamata ta ban mbokk ñu leen nuyu baax di leen siaral bu baax santaat bu baax a baax si bis bi xamanté mo te moo leen dajewoon fii muy sante Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Khadim Rasoul mu nekkon di sabar go xamanté ñu ko defal fi ci marché central Kaolack suñu borom def ci tawféex ba ñu def ko defee wax kaw na suñu jot ñoo ngi santal yàlla bu baax a baax a baax di nuyuwaat góor yàlla yi xam tey ñoom la ko doon teewe di nuyu soxla yi bu baax a baax di la ñaanal yàlla sa borom yokku leen gudd seen fan may leen wér yéen barke képp koo xam ne ñëwoon nga fi aajo boo am yàlla ko sëñ bi faj sëñ bi mën na lépp sëñ bi tax ñu koy def lépp sëñ bi mën na ko yaakaar naa tey bis bisu set la ndax xew wàcc na fi tamit nit ñi añ nañ bu sóor naan bi mandi kon nag loolu la loolu la sëñ bi santaane woon yàlla suñu borom def na def nañ ko kon ñoo leen sant baax dinañ ko asalaamaaleykum wa wa barakaatu taalibe yi ngi leen siyaar a di leen euh, ko sama loxo ma teg ci mbokk taalibe yëpp képp koo xamante ne yaa ngi féetee Kaolack ak fépp foo mën a féetee ñu ngi baax di la jox sa wàccuwaay di sant bu baax a baax ci bis bi wax dëgg yàlla jàpp nañ ko loolu nag ak cant la goo xamante ne sëriñ bi lañ koy jox ndax ñun danoo lot lool ci def waaye nag sëriñ bi bu la kattanalee lépp loo bëgg rek mën nga koo réussir kon ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax a baax di wax bi boo xamante ne bu yaatu la ba noppi daayira bu yaata la ndax liggéeyal sëriñ bi la loolu li war li waral ma koy leeral mooy dafa am ñoo xamante ni des fois dañuy ñëw naan lan moo tax du leen ñuy laaj wala ñu naan lan moo tax boole leen ci daayira bi man nag damay leeral ci loolu mosoo leen gis daayira boo xamante ne day jug di ñëw naan ku bëgg bokk loolu musta am daayira bi ci marché bi la ne ku ne xam na base bi mooy première porte jëwriñ ji mbay ñang moo jiite daayira bi képp ku bëgg a bindu ci daayira bi war nga bëgg cee bokk ñëwal ba ci jëwriñ mbay nga ne ko daayira xidmatu xadim dama cee bëgg ko defee dina la wax addiye ji ñu mën laa bind ñëpp xam nañ ni daayira bi doxee chaque jeudi dañuy daayira buntu place Moustapha Wéef muy troisième porte foofu la ñuy chaque jeudi mi ngi commencé mi ngi daayira bi dina commencé 19 mu arrêté kon lepp kep ko xamantene ne bëgg nga see bindu non lay doxé chaque ané tamit dinañ dem siyaare ji ki nga xamantene mo fi togal Sëñ Touba muy sëñ Moutaha Al Bashir kon kep ko xamantene tay bëggat manam ya ngi gis ñuy jox di laaj ñun du ñew ci kenn di la laaj te wo ci daayira bi kep ku bëgg bindu xam nga fi nga war a jaar ba bindu bo bindoo dañ la bind nga bok ci daayira bi adéré wu chaque ané nga bok ci safar geeg lepp kon non lay doxé gaay ñi ngi sant bu baax di gërëm ñëpp yaakaar naa ñëpp ñu warona sant tamit sant nañ leen mais nak dina ci tan kenn ko xamantene amuñu fayam muy musala le suma xasse xasee ba ne monsieur le maire waxna naa ñu ne ci ginnam kon jaru may tuddu ñëpp mais moussa le maire dafa am dafa def geste bu rafet lolou duma ko faté dama and ak mbay ñu dem ba bureau mu recevoir ñu waxtaan ak ñun xamal ñu laaj ñu lan moy suñu tank ñu wax ko ni bis bi nga xamantene ne dañ ko def chaque année muy safar gi dafa yexsi si ñu ñewon ngir bëgg nga japp ci bu wéré wéré wér a rek lañu wax moy ñaat la leen joxon daw ñu ne ko de nangam nga ñu joxon mu ne dama koy dama koy dama koy doubler mu doubler ko jox ñu xewal gu gëna takku gogou jàpp na lool ci bis bi kon ñu ngi koy sant di ko gërëm ak képp koo xamante ne jàpp nga ci su ma ko tuddee nag tudd naa autorité yëpp jërë ngeen jëf.